mu ngoog di yaakaar ne kon passé ngeen weekend bu neex en tout cas suñu côté noonu la demee jaajëfal leen bu baax si teelu bi nag namoon leen saa su ne nii lay demee altine ba àjjuma ñu jox leen dose bi ngi ni too ci maire bu goxub Kumbam Lamb ànd sax monsieur gaa ngi nii rek monsieur le maire. naka tey sant yàlla bu wér naka gox ba. sant yàlla sant yàlla. Euh, weekend bi fan la woon. weekend bi weekend bi demoon nañu si li xar rek. waaw mais teewul ambassade nañ ko ci tuuti. ah dox dox ngeen tamit. waaw dem nañu 16 hmm. basket club. Uh-huh. waaw dem ci Pékin. dem seeti basket waaw ak waa diisoo terrain diisoo. kon daal weekend waaw weekend tàggat tàggat yaram. waaw moom la de. ak wër basket ak lijjanti xar. ak lijjanti xar. mu ñàkk taabu góor. waaw fi mu nekk nii nga waroon lijjanti yooyu yëpp kii nga leen mujj mujj nañoo am. laay genn wàll gi sax amaguñ. déet waay. lu leer laa wax. nii nii nii ba léegi nii. sama ah nu may def man kay sama lépp nee naa la dama ko wér ci yow nga bañ. wallaay wallaay wallaay wallaay man te maa ngi wéeru sa ginnaaw. <laughs> maa ngi sa ginnaaw de maa ngi daal wax naa la li ma na xëj na ma nag mais mi ñàkk faale xalaat na ko sax. Baye Sall. sañ ma ko sax. mais ñun équipe matinale. <laughs> amaguñu. <laughs> yéen ñu ngi sa ñoo ngi nii taxaw. sëñ Modou Kara dey <laughs> waaw Modou Kara day moom réglé na moom mbir daal maa ngi koy gërëm moom mook Sëñ Bass Abdou Khadre Mbacké ñoom ñaar waaw ah, ñu leen di gërëm bu wér Modou Kara ak euh, Sëñ Bass Abdou Khadre porte parole boobu waaw ah, doo seeti Sëñ Bass Sëñ Bass Abdou Khadre doo ko seeti ah bu fi nekkul doo dem Touba fekk fekk ko Touba li sama maam waxoon ne xam-xam jar naa dem ba Chine waaye xar ah, xar kay fi ne jar naa dem ba Touba <laughs> nga gis ñu koy dem ba si si àll bi di ko jëndi pour andi xool fu mu gën a oyofee rek man kay fi mu nekk nii monsieur le maire xamul lu ma fi bàyyi. Hmm. nga joxoon ma bërëb. nee ma demal xombal xool. <laughs> sama dëkk wala ndàngal ma. sama kër wala ndàngal ma. ndàngal ma dëkku kii Mor Ngom. ndàngal ma. <laughs> nga na foofu am na xar. nag monsieur le maire yi fi mu nekk nii de. Hmm. laala Aïssa Fall tam maire bi naa ko nangu ci moom de. bu ko Aslim bii. ko nangu. mais bàyyi ba tabaski jot nga ne may. yow laala xam nga ci lu mu ne. Ah! yéen day uti ngeen ak sama responsable. laala xam nga lu mu ne moom du tëj portable am moom Bénis. du tëj portable am de moom ngéeme baarayam de dañ koy ubbi de. nekk nii de bëri mais Lalla Aïssa Fall tabaski salaamaaleykum kenn gisatu ko dem France. Lalla bul tontu yow daal noppi rek yow ñëpp xam nañ ci li nga ne. non lii dafa yomb trop lii dafa yomb de ngay mobiliser ay nit fii xaaral kii. Baye jàmbur. dama koy woo. Baye jàmbur. ah dama koy woo de. Lalla yow xoolal xam nañ ci li nga yàlla baax na. est-ce que ñibbisi na. ñibbiseegul. walaay ñemewu faa toog ba heure bi <laughs> gis nga gis nga. yàlla baax na xool ko. yàlla baax na gisuma fi numéro. doo ko gis. léegi la. ko gis. waaw. Hmm. am na si ñi ngay oo jot boîte vocale moom borom borom baax la. waaw kay. ate kon foog nga génn numéro. non dama koy oo. ah ah, ah Malick. dégg nga dégg nga xam nga demul. xoolal demul de demul. nekkul nekku fii. moom xam nga ne bu fi nekkee ñëpp xam ne moo ngi moo ngi Sénégal bu fi nekkee ñëpp xam na ne moo ngi Sénégal. léegi nag bu dee yow da nekk ci nguur te bu xew jotee ñëpp soxla la nga ni may. non newul may. et république bi dégg naa ñëpp dem nañ màkk. <laughs> ndeyu réew mi sax dem na màkk. moom mi dem na waaw. tonton naka fi des. fu mu nekk nii. damaa xam. yaa ah, yi mu jëloon. maître Oumar Youm dégg naa tukki na. <laughs> ana xaadim. dama ko gis gisuma xaadim xaadim gisuma ko. kon moom tukki na. xaw ma de. cey. fi kan lañ fi war a woo kon. Mame tukki na. ah affaire demoon na Maroc xaw ma ñëw na am góor gi nag moom maa ngi ko doon dégg ay booru yaayam ci Facebook bi booru yeeg Ndangaan Samb. foofu noonu des ku fi des. dafa dafa Youssou Ndour <coughs> Youssou Ndour yàlla xam ne damaa yorut numéro. ah man yor naa numéro am de. Youssou Ndour dëgg na de yor a man de yor naa numéro. Hmm. waaye heure bi est-ce que dina yeewu na yeewu heure moom. waa fii ku ñu war a woo. <laughs> ana grand sëriñ de Dakar yi ñoom ñaar. waaw ñooñu nag war nañ leen wax. ah Ngoné Ndoye de boo ko woowee jot ko. dama yorut seen i seen numéro grand sëriñ tamit non bu doon fukki benn jeex ñaari moom. mais gis nga sama directeur campagne te Bamba Fall ko woo jot ko galotaal nee na ma ñun de ñoo ngi fi. ah. <laughs> a ngi fi de yéen a ngi fi ay nekkoo leen fi. yéen a galotaal xam nga yéen fekk yow. monsieur le maire. galo sa problème. ma ne ko a ngi fi ay nekkoo leen fi. <laughs> yéen a ngi fi. alaaji bu saaxo moo doon wax ne. Euh. mambay day. ñëw na ci gàmmu gi ba noppi ñëw na te ñëw na waaw ah. waaw waaw. ñëw ci gàmm gi. waaw ba noppi ñëw. Ahmed na ñëwul ci gàmm gi waaye ñëw na. waaye ñëw na. <laughs> waaye am na koo xam ne malik day ñëwul ci gàmm gi te. ñëwul it ci gàmm gi. <laughs> Malick ñëw ci gàmm gi. del ñëw ci gàmm gi. tant bi riis na. ñu ngi gërëm ñëpp. <laughs> Ahmed day ñëwul ci gàmm gi waaye ñëw na. waaye ñëw na. waa mi waa mi kii kii yow yéen ala ngeen. foo leen ne. foo ne. wax leen ak nit ñi. waa kon Omar Youm la mais Malick. ku nekk directeur de cabinet président de la République. xanaa war a mën a wax ak waa Caajaay ak waa réew yoon xaaral ma fi bàyyi Ndakaaru borom Ndakaaru di dem laa ah xanaa gëw ma ne loolu. bu ah, man de bu demee. ah yéen ngi fi waaw kay yaay jërëjëf Ndoye jërëjëf jeex ñaari mi ngi fi ah. yow day dawoo te fayoo portal merci. wallaay wallaay dawul de. waaw xanaa waaw bu fekkee daw man opposition bi rek laa gis ñoo yëglu mais Sall waa nguur gi ana ñu. <laughs> Gallo Tall dee ngi fi Gallo Gallo boo ko oyee jot ko moom moom moom. mi ngi fi am problème le jeune libéral. ndeysaan. waaw waaw gëm sa bopp ana ngeen. xool waa gëm sa bopp seet. waa sa bopp ñu ngi fi ñoom dañuy wër. waa lii la. waa sa bopp dañuy wër. <laughs> tey mooy mooy mooy mooy. xaaral ma kenn kenn ku ma woo ba xam. koy woo. waaw waa république bi laay laaj man anañu ana tonton. <laughs> lu jigéen li moom dégg naa nekku fi te moom rek lañ yaakaar pour woo ko fajar pour mën a jot tonton. dafa dëgg na yow te boo ko woo moom au la koo paas. Ah, nekku fi. Eh, instant bi koy woo mu paas la tonton kan. moo jaaxal ñëpp. déet déet waxal rek kay koy woo fajar gi. kii xaw doy waar non c'est monsieur le maire problème mooy dafa ragal quoi moom duy laal yax bi gi koo mën a woo pour jot war a mën a woo. yaay fan Dakar wala dem nga tukki. Hmm? ya merci d'accord merci ah. booy. kookoo ngi Dakar. <laughs> kooku bu lay kookal la <laughs> kii laay woo. kan la day sonné rek de. kii baa jëlu jëlu. Père yaa ngi ci ah, réew moom mi ngi ci réew mi nag maa ngi koy mais mi ngi sonné au moins mi ngi sonné. waaw ah Père laa yërëm. non Père Cora mi ngi ci. boo seen seen yi ci Facebook bi. ñëpp a ngi xas seen i responsable yi. Hmm. dañ leen jot. kon oo oh, oo oh, kon oo oh, Diop Paul Diop du ñu dara. ndekete journal bu jeex pire moom l'observateur u démba yem du ñu dara. jaruñoo jàppale de. ndeysaan jaruñoo xeexal de. <laughs> laay balaa koo xam tey tey. ndeysaan ah, maam si nañ dem garaawul. maam garaawul. waa gàkku tam anamu. Ah. <laughs> <laughs> est-ce que. booy politique laa yërëm président yi. Gàkko anniversaire la. waa Gàkko anamu moom it. <laughs> Cheikh Ba anamu. yow de waa Medina nga anamu. mu ngi dimbali waat. monsieur le maire yow gis nga seex Ba fu mu joxe. gisagu ma ko de. <laughs> eh yow. joxeem de yéen a ko gis. yor naa numéro bi dama woo ko ñu xool xalifa dee ngi fi tukkiwul. waaw eh, dëgg la yàlla fi Bamba Fall a ngi fi. Bamba Fall tamit Barthélemy Dias tam ngi fi. Mhm. waaye mënuñu koo jot. Mhm. non. yàlla yow eh, ñëwal yow. ay tey ca xar yi la génn. Malick loolu bu fiti nit ñi. bëgg a teyloo suñu xel rek ak bëgg ñëw dolli na xar. Malick fan la jëlee xar yi. yóbbu nga fiti ñi ñi ñi bindoon seen kër yi taabaguñu xar da nga génn affaire yi ñoom ñoom ñu jóg toog <laughs> sama ndey. Sénégal ñëpp a jug toog bi yàlla baax na pour ñoom xaalis tere bi dañ koy maye. si Moussa la yéen a kaay ñëw ci Thierno Lo. Mhm. dal na ci ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye. dal na seen kaw waaw la wax li de ak ñoom sëñ Mbacke Ndiaye. Mhm. nee na askan wi ci boppam ñoo war a jug yëkkati ay daan lal ko ci ndoddug ñii. ak seenug wax waaw. évidence mhm. yéen ñëw ak ci Mbéri Sila bu nee na président Macky Sall bàyyiwul ba ñàkk nguur gi di doog a bind ay mémoire dégg góoma de. maître Djibril Waar dal na ci kaw seex Seck de bu PS. nee na waa ji comploteur hors pair la. wallaay 24 heures ñëw ak ñun ci Moussa Diakhaté bu bokk gis-gis. nee na gis nga APR li muy saf instant bi mooy li PDS doon saf. moom lay saf instant bi waaw nguur gu jeex. PDS 2011 fii APR toll nii PDS fii la toll woon waaw ndaw yi nga xam ne ñoo ànd ak Siré Dia daal dinañuy song Augustin Tine ne coow lii ñuy wax ci poste yëpp Augustin Tine moo nekk ci ginnaaw ak directeur de cabinet nekk ci ginnaaw waaw waaw Moustapha Guirassy nag nee na gis nga Macky Sall dañoo jaawale train mm. mel na ni nga war a jël 39 bi rek dem jël 45 wallaay dañoo juum xam nga yéeg ci gaal goo xam ne moom xam destination inconnue les quotidiens yéeni kaay ñëw ak ñun ci président Macky Sall mm-hmm. daa demoon Touba na fa illaa Touba bi la jël tali bi ah kon seeti na jëmm ju tedd ji de sëriñ Mountakha Bassirou ba waaye ni mi ku ne wàllum liggéeyu Ila Touba jooju fan la toll mhm. dégg nga loolu vox populi ñëw ak ñin ci xaru tombalaay mhm. dafa dagan wala dafa aram loolooy laaj bi waaw imam Kate nekk ca jumaa ja ca point e atte na de na wax ji waaw nee xaru tombalaay daal boo ci gañee am ngay àpp de mhm. parce que ah xarkat araamul ni mbaam xuux wala wala lekkatu Euh, euh, meddi yeeg yooyu. Mm-hmm. waaye daal xam naa ne tabaski daal amoo ko. doo am mais daal am nga yàpp. kon leer na leer na nañu. direct ci info ñëw ñun ci tabaski 2018 bi monsieur le maire. Mm-hmm. nañu <laughs> xam nga nit ñee doon sacrifier xar yi. <laughs> waaye rey. mais bi yoon boo sàgganee xar yi ñooy sacrifier père de famille. c'est sûr non dafa miti. doy na waay ba léegi nii la nee na lu tolloog ñaari junni ci ay kër la dimbali tabaski ca njaareem. mooy jabaru Birima Mangara. Mm-hmm. Dakar Times ñoo ñëw ci. le monde rural va ni Sénégal yëpp rek mittee rek. yi ak baykat yi monsieur le instant bi sonn nañu. non seulement amuñu njëgu xar tamit seen xar ya danoo dee. mu ah, mooy feebar bii rey leen nii. Mhm. ngeen. doy na waar ñëw ak ñun ci Kabirou Mbodj. Mhm. njiital wari. journal bi nee dañ koo teg loxo ca diwaanu Espagne. Mhm. ngir wàllum njuuj njaaj escroquerie wu fanweer ak ñeent ci ay millions. dégg nga loolu. Mhm. libération yéen kaay ñëw ak ci. Mhm. Euh, banque de Dakar. ñaari administrateur yoo xam ne nag waa Amérique ñi ngi leen tëg bët. pour waaw wàllu blanchiment la. lañ leen di toppee. xam nga li ma la. leer na. ci. ujaaj yi. Samak. waaw ah, sonn nañ de. teel sonn nañ de Sénégalais daal fi nekk nii lekk gi ñu leen di jox foofu noonu fi nekk nii loolu la ñuy kaas. ñi nga xam ne dañoo am jàngoroy jabet moom fi mu nekk nii. Mm-hmm. ah sonn nañu. xamuñu xamuñu lool waaye nag délégation générale ba moom ca waa yi lañ ko jiin. ñoom ah, waaw waaw. Mm-hmm. réew mi quotidien ñëw ak ñun ci Kofi Annan. Mm-hmm. wuy ji na boromam. génn àdduna ah. Kofiana waaw walaay ndeysaan waaw waaw. Patara nga Cheikh Tidiane Gadio nekkoon sax waa ji tax na mu génn. mu wax le soleil yéen kaay ñëw ak ci génn àdduna wu Kofi Annan mii nekkoon secrétaire général Nations Unies ONU dégg nga. lañ ñu xamal daal mooy koo xam ne jàmm rek ci la doon dox. ndeysaan waa ji moo dem. Euh, enquête yéen kaay nag ñëw ak ñun ci Sadio Mané Sadio Mané rek ay mbiram moom xam naa ne doy nañ waar. <laughs> ni muy taxawoo Liverpool daal ak ni muy taxawee fii ci réew mii. am na différence Liverpool daal xaxataay rek. na neex équipe nationale ay jooy neen. xoolal photo bi bii di dugg rek. non xoolal photo bi rek. ndeysaan mi ngi. Hmm? ñaari mhm. mais gis nga Laye Diaw li mu wax. mu ne. Laye Futurs Médias. mu ne na c'est que Sadio Mané c'est que bi li koy laaj aussi. moom la ce que attal ko. day joxe lu bari. en tout cas de xam nga bëgg a jël lépp tamit lal ci ndoddam. Mhm. comme nañ ko defee woon ci El Mmh. ii hélas nag bopp bee baax. li mu antan waaw moom stress sonalu ko. mukk ci këru àdduna. lépp day gérer Idrissa mmh. ñëw na nag ci ñiy dee ci biir géej gi. Idrissa Seck nee na lépp daal tëlewu président Macky Sall la rek. Mmh. waaw loolu la wax. waaw moom loolu Ndaamal Kajoor loolu la gis. Ndaamal Kajoor la gis. tës bi. ah tës bi de man dama xamul lan laa war en tout cas daal tey tës bi dina am gan gu rëy. tey jii ah waaw ku fay ñëw. déet bàyyi surprise la. <laughs> tey kay studio yi moom ku fay ñëw tey